kii doo daram بسم الله السلام عليكم السلام بنت نادر نعم، سوادية الحمد لله yéen tamit bàyyi leen koy di ñaan yàlla moo gën. waaw man de man mi sama jëm bopp sax dama jaaxle bi may génn kër ga sax xaw ma ma kër ga ngi koy xayda ah mais lii lii lii lii c'est du jamais vu mais nu mu demee noonu yéeme na de ñun dañoo xëy gisuñu xayda gisuñu nafi yaayam wër ba sonn wër ba sonn vraiment man comprendre ma affaire bi ni mu demee nii ah mais yàlla baax na xëy na yàlla en tout cas en tout cas daal ak loo mën a dégg daal mooy yéeme na trop trop trop trop trop trop léegi nag euh, juste une question léegi lan nga xalaat ni moom mooy solution bi waaw mais solution daal lu dul ñaan ak wër ñaan yàlla mu nit ko parce que loolu rek mooy solution bi ah à part loolu man gisuma leneen jéem a wër xool def déclaration ñaan yàlla mi ko mu dem ñu ñu tal ñu ko. yàlla baax na yàlla baax na. mais de toute façon ce qui m'étonne mhm. mooy Nafi moom. xamul fen bay dem fenn lii rek a ma jaaxal. moom na waar Binta damaa bëgg nga xam ni lu loxo def rek loxo mën na koo dindi te gis nga lii day leer nañ ma bëgg nag nga jóg ñu am fu ñu man xam naa ne xamoo dara waaye fii àdduna la te dara ump ma fi jógal lii lu ma tëdd ci la taleeru gay maa ya. ngi ñëw élage maa ngi ñëw baax yàlla baax na nañ ko teg ci looko yàlla rek metti na nag metti na trop metti na trop gis nga 221 bi man ak yow Lakers and Boston la ma neex lay play dinaa la dóor te sama loxo du la te fi gën a ci yow du baam Dis-moi que c'est pas toi, Dis-moi que c'est pas toi qui a kidnappé Nafi.

ale bi dama doon géem am ngor bàyyi la nga géem comme nu mu la neexee retour bi man maa xew te damay play comme bon me semble ok xam naa la bu baax li nga capable pour def ko mais tu connais très bien ma nature je t'avertis boo laalee karaw bi gën a ndaw ci Nafi je te ferai avaler tout le malheur du monde. Motherfucker. Hein Y'a ma woo kan ma woo इसका Maurice, est-ce que vous voulez venir Non, non, non, viens, viens tout de suite, c'est urgent. Marème Marème yow ñu dal dëkk ba yow kii nekk ci combat nga yow ñu dal dëkk ba du nga ne borom këram la man tamit borom këram la jarul nga may xul ay bët la wax li nga li nga gis moom ba bëgg man loolu laa gis moom danaa lox benn affaire xaw ma lu mu la ñamal ba ngay tëb di dal ni mais man la ko njëkk ñamal sa way di nga wax yega guñ ci bay ba nday mbil bi yow di nga xamne lepp deug la nga xam kan moy kan yow Fatou. naga mu. ça apa si jamu? main rek. wa Fatou. Hmm? Fatou lan mau kau, depuis keroog bi nga gisee image bi sama téléphone ba tey ba nga defee sa réaction bu bizarre bu ba tey da nga changé da nga may daw lan moo xew. Fiska wax bu nekk ak bésam yow xam nga man duma la nëbb dara. loolu ah, laa de. Hmm. àdduna moo rek. Hmm. <laughs> Fatou sa kanam de waaye man duma xale gis nga man. léegi magum jëmm laax xam naa lu baax xam lu bon te nga ma wax dëgg bi rek kooku kan la danga ko xam Fiska ki nga doon may deret noonu hmm. mooy sa sama sama doomu bàjjan la ki ma may deret sa doomu bàjjan la C'est dăm bagen e e la mai dere. Wow. Ah, mai dou comprendre? que je comprendre, face à son accident. Il fallait mo quoi, ko deret. Ah, la sentiron, azar amul? aduna guduna tanka de. ah. xam naa sax su génnee hôpital dinañ fa ànd man ak yow ndax kontaan na trop ci liñ ko defal ay faatu defal loolu dinañ ko def incha allah loolu dina ma neex de baax na ay yow yàlla na ta nekk jàmm amin man sax xam naa damay ñëw génn danga génn nii dama ñëw ànd ak man soleil baa doo guddee rek <laughs> faatu bàyyi fiire bi duma guddee yow tamit ah maa ngi dem préparé wu baax na xam nga àdduna bi daa wóoroon <laughs> Tenket baax. ok léegi Oke, lagi, lagi, na si kanam. ok. kii j'espère que bu dëgg bi di dina mabal? comment vas-tu. Ami guddee nga tey de. ah may def misaal. mais gis na xale jigéen ñi liñ jël balaa ñuy ñëw ci xew yi rek ay vingt deux heures ak vingt et une heures de. ah mais mooy loolu. <laughs> man de xam naa ne moom yoroon naa waaye gënati naa kontaan. <laughs> <laughs> ah. ñu hmm. la demee. waaw. Ah. ndeysaan sa dàq gis naa ko rek moytal asaneeg de. ah. la dara Comment allez-vous Très bien. Et toi Ça va. Femme noire, femme sénégalaise, vêtue de ta sénégalaiserie, qui te rend si belle. Tu es à l'école Beaux-Arts. Où est ça Dans son bureau, la de Joko. Ok. N'y pense même pas. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini waaw. kii di Soxna Aida. maa ngi na nga def. maa gis de. Alhamdulillah. ngi fi. waa jàmm. jàmm rek Alhamdulillah. waa kër gi. alhamdulilah waaye yow moom lu ne woon sa tànk tey. sëñ bi. yow de boo ma gisee sa biir kër gi war ngaa xam ne jaaxle rek moo ma indi. sama doom ji ma daan ñaanul fii muy nafi moo jékki-jékki na mër dem. kenn xamul ci fu mu ne. Binta mii gis nga ni nga ko gisee nii la ko jàppoo ay jooy rek lekkul naanu jaaxle rek moo ñu tax a ñëw. soxna si. Hmm? baal jooy. métti na waaye baal yoroo foofu ñeent téeméer alhamdulillah Nini. waaye ci ay loxo la nekk waaye nit ñi am nañu xol na fi ak ni mel nit war na koo mën a tëg bët amoo dara looy xalaat ci moom du jël ko di ko téye. soxna Aida réewum taax bu ñu soxlawee xaalis da leen di jaral lu ne waaye nag yàlla baax na. sëñ bi dimbali yàlla may sama doom ji feeñ sonn nañ. <laughs> sonn naa sonn naa. Ah! man de xawma ci ban monde lañ ne. mu ngi ci ay jafe-jafe. ah. waaye naa ci def lépp lu ma mën. incha ay. soxna Aida damaa bëggoon ngeen dem ba suba suba ngeen dellu si fi dina ya am lu leen jox ngeen jëfandikoo ko. incha allah. yàlla dina ci def ndox bu sedd. waaye ya amiin waay dina feeñ. yàlla baax na. yàlla nit da lu muy def yàlla baax na. bu yàlla tas yaakaar rek. Ya,

qu'on fait d'art en plus entre de le l'eau. comme d'habitude. comme d'habitude n'y est-ce pas Allez. On va faire dem. fu ñuy dem. Faut pas ñu dem. fu la ah. ça. Hein? ah. C'est знала Бога, na ñu bëggante ba faaw ñaan yàlla barkeel suñu ànd xewal ak njaboot ju Oui, ça m'a Wisamade Kitty Fraser, la poésie des saveurs et l'art culinaire qui